wala pour traduire ci whatsapp bi lu yomb la da ngay bës fii nga bës trois points yi soo ko bësee ñaari làkk man laa réglé muy français arab mën nga dugg ci biir su la neexee nga changé man français arab su ma bindee français ma traduire ma arabe su la neexee nga renversé ko maanaam nga bës flèche bi ci digg bi mu andi la arabe bi léegi kon léegi arab laa binde mu traduiral ma francais par exemple ma bind uh-huh. ana muallimun baari léegi arab laa ko bindee bëgg mu traduiral ma ko français damay bës fii moo bind a a boobu ci suuf te mu gis nga mu traduiral ma ko je suis un brillant professeur su ko defee mën nga ko envoyé ki ngay waxar par exemple jaajëf